parce que mag ñi dañ naan foo doon taxaw di yuuxu di yuuxu ba ñu wollu la boo dee gor nga war nga fa taxawaat sant ki yuuxu yi nga ne yuuxu yi jeex na lii ak lii moo tax ma bàyyi yuuxu yi président de la république la ñu ñëw pour sant son excellence Macky Sall ñun collectif yëpp ñun ñoo fi daje tey ñu ne nañu wàcce kaamil ñaanal suñu xalifa Cheikh Abdoulaye Thiaw mi fi jógee yal na yàlla yokk ay leeram ñaanalaale réew mi jafe-jafe yi fi nekk ak mbas mi yëpp suñu borom teggi ko ci jàmm ñu ñaanal suñu bopp ñaanalaale président de la république parce que mom mo ñu yilif ñun ñëpp ñu nekkoon fi nak di xëccio suñu suuf yo xamante ñun ñoko ko suñu suñuy suufu maam la suñu mam jël ko jox ñuko jox ci ay nit depuis 2002 ñu commencé won ci liggéey bi démé ba 2012 ci la fi ay promoteur dugg moy bi VDN 3 bi jaaree fi ñu jël ko séddoo ko seen biir euh, bureau yi wa cadastre ak wa domaine biñ ko séddoowee ñu nekkoon ak ñom lit bu metti and nañu ak yéen journalistes yi fu nekk dem nañ fi urbanisme dem nañ fi cadastre dem nañ fi domaine dem nañ fi ministère yep, fu nekk dem nañ fa ba jamono yële passé président de la république ñu defaloon ko benn lettre recommandée yàlla dogal jotu ci bi muy ñëw Malika le 24 bi passé si la ñu arrêté cortège bi jox ko lettre mu tontu ñu une semaine après xamal nañu ne suuf si arbitre def na arbitrage delloo na suuf si borom tool yi ak ñi ko jëndoon environ 3500 personnes yëpp mu ne dem leen ñu régulariser leen. tey nag comme commencé nañ liggéey bi ñu ak Mame Boye Diao ak ay collaborateur hmm. depuis une semaine ñu ngi dem domaine national di liggéey ak ñoom hmm. ñu ne jot na nañu ñëw wax ne Sénégal képp koo xamante ne naroon nga fi dugal loxo génneel sa loxo ndax président delloo nañ suñu moomeel bëggatuñ fi coow hmm. bëggatuñ fi problème dañu ñëw pour toog suñu moomeel defar ko pour nekk fi ak suñu njaboot ndax ay sénégalais lañ loolu moo waral dajaloo bi di sant ak gërëm fii du Tivaouane Peulh fii dañoo am ay sëriñ yu garanti fii bu nekkoon Tivaouane Peulh ngeen gis bâtiment taxaw fi wala promoteur taxawal fi bâtiment mën nañ ne Descos benn yoon la fi dugg duggaatu fi parce que fii du Tivaouane Peulh fii Malika la village religieux la créé par Seydina Limam ali salaam à 1904 wax nañ ko kilifa yi su fekkente ne bëgg nañ jàmm nañu bàyyi Malika ci jàmm